juróomi waxtu tegal na benn simili ci mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak jamono media and product ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne dal leen ak jàmm ñu fa yéene faram fàcceel leen xibaar yi ci kàllaamay wolof ngeen ci ànd ak Mariama Ba dañu daal di tàmbali xibaar yi dëgmal leen di gën a fës si bopp bi tàmbalee ko ak ponk bu njëkk euh, di wax ci foofu li nga xam ne moo di sa bërëbu attekaay bu mag bi fii nii ci biir réewum Gambia gannaaw bi nga xamante ne dañoo génnee ab atte ko ci ñi nga xamante ne ni moo di inspecteur général bu police ak nga xamante ne moo di Anthony général ngir ñu daal di génnee ab koppar bu takku daal di koy fay ki nga xamante ne moo di ab ndaw bu wuyoo ci turu Mohamed Lamine Koma fii nii ci biir réewum Gambia beneen ponk xibaar yi tamit dinañ ko fii faram-fàccee mu jëm ba léegi ci wàllum autopsie bi ñu nemmeeku ne daal di nañ koy def euh, ne nee nañ dafa faatu woon te ki nga xamante ne moo di euh, jabaram mu di soxnaam daal dafa weddi ji daal faatu wu ci nee na noonu rek waaye beneen kooku ko fi faram-fàccee mu jëm ba léegi rek euh, ki nga xamante ne ne mekku nañ ne ci nguuru Yaya Jammeh la nekkoon te nekkoon na ci ab borom nombal tànk yëkkati ay kàddoom wax ak waa Standard News bi ba gannaaw ba fa doon am ab interview di wax ne daal réewum Gambie dafa jot ngir ñu wëyal li nga xam ne moo di seen liggéey maanaam daal toppatoo seen soxla te li nga xamante ne moo di wàllum jàmme ngir mu daal di tëddee ab boor beneen pompe xibaar yi tamit dinañ ko fi faram-fàccee mu jëm ci ndongo yi nga xamante ne ñoo nekkoon ca classe ab grade 9 gannaaw ba ñu nemmeekoo ne lu tollu daal nee nañ fukki ndongo ak juróom-ñeent ñoo daal di génne li nga xam ne moo di aggregate 6 fii nii ci biir réewum Gambia mbokk yi léegi yeneen i xibaar ñu faram-fàccee lañ ko fii nii ci jamono media and products ngeen ci ànd ak noppi nun tambali tàmbali dugg ci faram fàcce gi comme nañ ko junjee woon sa bopp ba tey di ben fan ci weerum octobre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn xibaar bi dañ koy daal di ak standard newspaper seen ndaw bi di Assane Sall mo daal di xaatim xibaar bi leen mu jëm ba légui rek ci banjul magistrate court maanaam atté kay bi ma bi fekk fi ni ci biir réewum gambie gannaaw bi nga xamante génné génnee nañu ab donc tek ko ci ñi nga xamante ñoo di inspecteur général bu police mu di igp ak ñi nga xamante ak ki nga xam ne moo di Antonio General mu di AG ngir daal fay ak koppar bu takk koppar goo xam ne toll na euh, ci li nga xamante ne moo di juróom-ñeenti téeméer ñaar fukki junne ak juróomi dalasi moom nañu daal di war a fay ñu ngi ko war a fay nag ci góor gi nga xam ne mu ngi wuyoo ci turu euh, Mouhamed euh, Mouhamed Lamine Kouma Mouhamed Lamine Kouma nag nee na daal dafa indi woon li nga xamante ne moo di ab complet na maanaam ab ñaxtu boo xam ne daf ko yóbbu woon foofu lee ca bërëbu àtteekaay ba gannaaw bi ñu nemmeekoo nee na ba mu amee li nga xam ne moo di jafe-jafe ak ki nga xamante ne nii moo di kër gëm doon luwaas maay ki maanaam ki nga xam ne moo di jigéen jam moom kër ga nee mu amee jafe-jafe ak kooku lee muy wuyoo ci turu Néné Balde ak ki nga xam ne moo di Yaya ba mu am ak ñoom jafe-jafe mu ne laataa loolu nag si la nga xamante ne nii daal moo di ñaar ñooñu daal di wax ko ñi nga xam ne ñoo di takk dere ñu ñëw ca kër ga daal di lépp loo xamante ne nii daal ay jumtuwaayam la woon nga xam ne moom la doon jëfandikoo gannaaw na ba ñu nemmeekoo ne jël na nee nañ ay jumtuwaayam mu daal di woon si leen ci topp loolu nag mu ngi nekkoon ci atum 2016 maanaam atum ñaari junne ak fukk ak juróom benn boobu ba léegi nag moom itamit mu yóbbu mbir ma fa mbaxana doonee benn jàppale ngir ñu daal di koy mën a jàppale ngir daal mu gën a mën a jëlaat bi nga xamante ne moo di jumtuwaayam yi nga xam ne ñuy daal di woon nañ koy nangu naataal loolu nag ca la leen topp ba sonn waaye mbir ma mujjee wutoon na mi ngi ni nag ne nii ñoo yore wàllum atte gi fii ni ci biir réewum Gambie ba def ci ab saytu gis ne daal lépp loo xamante ne indi na ko fa mu dëgg la moo tax daal mu daal di génnee koppar bu takku gi ne daal ñi nga xamante nii ñoo di inspecteur général bu police ak ñi nga xamante ne nii daal moo di Anthony général ngir ñu daal di ekkati koppar bu takku sax google daal di koy jébbal ki nga xamante ne ni mooy wéy ju turu Mouhamed Lamine Kuma fii nii ci biir réewum Gambia mbokk yi noonu la ñuy demandi ak beneen xibaar tibbee ko ba léegi rek sa standard newspaper seen ndaw bi di Omar Ba moo ko daal di xaatim mu jëm ci ki nga xamante ne ni foofulee ca Gabon ab benn fajkat maanaam ab docteur foofulee ca Gabon moo daal di def ab autopsie autopsie nag bi nga xamante ne def na ko mu di wàllum saytu saytu ba mu ko defee mu ko def nag ci doomu Gambien bi nga xamante ne ni dafa daal di faatu woon gannaaw ba ñu nemmeekoo ne na bokkoon na ci ay nappkat wala doon liggéey ci li nga xamante ne moo di gaalee foofulee ca biir Gabon ci digënté gabon ak togo ñu né nak li nga xamanté ni mo dé gal gi légui ko mom na muy wëyu ci turu hawa ganna bi nga xamné ap ab gambien la ñu ko né tamit seydina dukure momi tamit nek na ki nga xamanté ni nii daal moom moom mbir lu ñu mel manam mo jité won ki nga xamné mo di doomu gambien bi lee ñu ko né nak mom mi nga xamanté ne dafa faatu won ay njabootam nag daal di yëkkati seen ay loxo ko daal dar seen ay bop di wax né seen doom bi daal bu mu faatoo ba ñom gisunu ñu néw dañ leen wax né rek dafa daal di faatu waye ki nga xamanté ne di jabaram ji ji nga xamne mu di soxnam si nga xamne jamono ji euh, mu ngi ci ab teen yu mom nak dafa dal di weddi mbir lu mel di wax ne dal borom kërëm gi faatu wul nonu kesse faatu bi dafa am lu ko wuntu lolo waral nak ñi nga xamante ño nek fofu le ci gabon dal di amal li nga xamne modi moo di ab caytu tu bi bañ ko amé nag nee ki nga xamante ni dal modi gor gi dafa dal di faatu tan li faat dal dafa faatu manam yalla mo dal di ñew rek mu dal di faatu way dal dara jottu ko won way docteur bi tamit gëna indi ay leral di wax ne na waji daf doon jëfëndiko li nga xamne modi walum euh, cigarette fofu li nga xamne modi sa sa a Gabon waaye gannaaw bi nga xamante ne waa Standard newspaper jot nañ li nga xam ne moo di bataaxal boobule ñu daal di koy yeggee ki nga xamante ne moo di lu ñu mel ne moo di borom këram googule daal am na daal lu xew mën na noo wax ne daal xëy na dañ koo faat wala daal dafa amoon ñoom ay jafe-jafe ñu daal di koy faat neen daal ndax mbir loolu mënta am ndax bu ñu nemmeekoo nee nañ faatu na ba am ñetti fan daal a woon euh, borom kërëm googule maanaam boosu borom kër gi mom da wax ko won dara ta ba léegi tam yëkkatiwu ben kàddu tax sax mu doon am ak mom ay jokkoo kon nak waron nako yonne li nga xam modi moo di këyit yooyu lee ci këram ji mu di borom këram gi liko dal di faat way mu ne mbir mi dal dañ koy dal di liñ ci wala dal amna dal lu ci dal di ñuul ci soomi lool mo waral mu ne moom pare na te dina juk dal dina def kémtalaayam katam ba yobbu ñi nga xamante ne nii ñoo di ñam momol gal googule fofu li nga xam modi fa mbaxana doone ben fini ci bir rewum Gambia kii noonu la ñuy def nag demandi ak beneen ponk xibaar euh, di leen fàttali nag yi yéen ci jamono media and products euh, xibaar bi dañ koy daal di tibbee ci euh, standard newspaper seen daw bi di Alaaji Mané moo daal di xaatim xibaar bi leen mu jëm ba léegi rek ci former armée général ak leader bu alliance for national reorientation and development moom boo Bojang gannaaw bi nga xam ne nag yëkkati na ay kàddoom ba mu doon amal ak waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di waa standard newspaper ne dafa bokk nag ci ñi nga xamante ne nii daal nekkoon nañu loxoom ndeyjoor wala loxoom càmmoñ ki nga xamante ne moo fi nekkoon jiitum réew di Yaya Jammeh waaye moom nag kàddu yu mu yëkkati daal daf ko daal di ko ca interview boobu moo dee daal askanu réewum Gambia jamono ji daal dañoo war a wëyal seenu ab liggéey wala daal toppatoo seenu soxla te bal li nga xamante ne moo di mbirub ki fi nekkoon jiitum réew di Yaya Jammeh ndax nee na bu ñu nemmeekoo ñu bëri ñu ngi wax naan Yaya Jammeh bi mu fi génnee nee na moom sax bi fi Yaya Jammeh bàyyee di ko ba bàyyee ba léegi daal moom déggante wut ak moom amut ak benn kàddu boo xamante xamante ne wax na ko ak moom mu ne ba léegi nag ñëpp na ci ñi nga xamante ne nii daal bokkoon na ci nguuru Yaaya Jammeh tey tamit na si ñi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ne susoon na ko lool waaye moom daal indi na ci ay leeral di wax ne ne jamono ji tollootuñ daal di wax naan fii la Yaaya Jammeh defee lii ak fële la defee lële ndax nee na tiyaaraar si ba mu yegsee dañ ko daal di rafetlu ndax daal bëgg na ñoom ñëpp ñu daal di fay teew baalu askan wi ak waaye rawatina yi tamit wax lu métti yi nga xam ne tegoon nañ ko askan wi mu ne tey tamit boo seetloo ñu bëri daal tàddi nañ fay toog waaye nekku ne Yaaya Jammeh moo leen joxoon order maanaam daal ndigal gi nga xam ne defoon nañ la ñu def nekkul ne yaay jame moo leen ko jox bañ ko daal di woon a def ñu si ëpp daal ñu ci bëri dañ ko def ngir seenu coobare loolu moo waral daal mu ne jamono ji daal ñu ngi dañoo war a fàtte eh, mbir lu ñu mel te daal di lijjanti li nga xamante ne nii mooy doxal réewum Gambia kanam ndax nee na bu ñu nemmeekoo réewum Gambia dañoo soxla yóbbu ko ca kanam moo gën daal ñuy wax affaire waxu li nga xamante ne nii daal moo di yaay jame defoon na fi lii ak defoon na fi léegi mu ne it tamit li nga xamante ne moom nañu toppee yaay jame li nga xam ne moo di luwaa daal am na ci ay daan am na ay sàtta yoo xam ne teg na ko ci kon nañu daal di topp sàtta yooyu lee ba xam ne ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitum réew mu di Yaaya Jammeh dinañ ko lijjanti wala mu xool daal askan wi ndax dañ koy mun a baal waaye nee na jot na daal ngir askanu réewum Gambie yi daal jëm ca kanam daal di suqali daal seen bopp moo gën daal waxtu bu nekk ñuy topp na daal kii ci nguuru Jammeh la bokkoon wala bokku ci fii nii ci biir réewum Gambie mbokk yi ba léegi rek dañuy demandi ak beneen ponk xibaar xibaar bi tamit ñu ngi koy desandi ba léegi rek ak standard news paper mu jëm ki nga xamante ne ndaw bi di Oulimatou Kuka moo daal di xaatim xibaar bi leen mu jëm ci ndaw yi nga xamante ne nemmeeku nañ te ñu doon amal li nga xam ne moo di seen jàng mu di grade 9 exam fii nii ci biir réewum Gambia mu jëm nag ci ministry of basic and secondary education maanaam jëwriñ ji nga xam ne moo yore njàng meeg njàngale bi fii nii ci biir réewum Gambia ni ngi nag ci alxamis gi mu daal di yëkkati ay kàddoom génne ko mu di ab bataaxal boo xam ne génne nañ ko wane lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay ndongo daara yoo xamante ne nii daal génne nañ agrégate daal am li nga xam ne moo di raw gàddu bi jongante daal bi ñu doon ut daal am li nga xam ne euh, moo di ca raw gàddu ga jël nañ li nga xam ne moo jiitu euh, ci raw gàddu googule mu di agrégate six loolu moo waral nag jëwriñ ji nga xam ne moo yore wàllum ñàngal ñàng meeg ñàngale bi fii nii ci biir réewum Gambia yëkkati daal nga xamante ne moo di ab jaajëfalam daal di koy jox ñi nga xamante ne ñoo di ndongo yooyu le gën a fas jom gaa di gën a mën a wëyal li nga xam ne moo di seen jàng xam ne daal yeneen bu a jongante mu ngi seen kanam tam mu leen di xaar fii nii ci biir réewum Gambia légi rek dañuy demandi ak beneen xibaar dañ koy daal di tibbee ji sa Forea ya news uh, paper di leen fàttali nag yéen ci jamono media and uh, products xibaar uh, bi na dañ koy tibé ji sa Forea ya news paper mu jëm ci digënté réewum Gambia réewum Sénégal ak yeneen réew yi nga xamante ni nii daal Mauritanie bokk na ci ak ñi nga xamante ñoo di wa guiné Bissau gannaaw ba ñu ko nak jamono ji dañuy bëgg amal li nga xamante ni nii daal moo di ab doxalin ci lu jëm ci walum ndox mi fini ci biir réewum Gambia ak foofulee ci biir Mauritanie ak Guinée Bissau ak Sénégal ngir dal li nga xamanteni moo di wàllum jëfandikoo ndox mi ñu mën ci mëna jappandiko loolu mo waral nak ni gini ci àllarba gi ñom nak ganna bi nga xamanteni dañu bëgg def bolo nek ben ngir dal li nga xamanteni ni moo di jëfandikoo ndox si digënté réew yi le gëna mëna tax ngir dal réew yi mëna am li nga xamanteni mo di ab ben bërëb wala dal ben bërëb bo xamné lepp lo xamanteni walum ndox la ta askan bi dañ koy jëfëndiko mu fay dal di ko loolu mo waral ñom ni neen ñu dal di waxtaan seeni ay biir ta jamono ji sax waxtaan bi eh, dem na ba nek ci li nga xamante moo di ndar kepp gi ndax daal mën nañoo rafet njottu ne léegi tey daal li nga xamante ne moo di projet boobu daal dina taxaw ci diggante réew yi mu di diggante Guinée Bissau Mauritanie Sénégal ak fii nii ci biir réewum Gambia ba léegi rek dañuy demandi ak mujjeelu ponko xibaar bi di wax ba léegi rek jëlee ko ca Foroyaa newspaper mu jëm ci li nga xam ne moo di turu commission bi mu di TRRC seen ndaw bi ni Nelson Mané moo daal di xaatim xibaar bi leen mu jëm ci turu reconciliation and reparation commission bi mu di TRRC gannaaw nag ci alxamis gi fanweeri fan ci weerum septembre atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn bi nga xamante ne daal di woon nañu génn naroon na yóbbu li nga xamante ne moo di seen ab bataaxal bi nga xam ne foofu nañ daal di xaatim lépp loo xamante ne na euh, ci wàllu ab boo xam ne askan wi ñaxtu woon nañ ko wala képp koo xamante ne demoon nga toog foofulee ca bërëb boobulee mu di sa tiyaaraat si euh, a ekkati di kaddu yi nga xamante ne tegoon ko wala naqar yañ wala yow nga tegoon ab nit naqar yëpp dañ ko daal di euh, ko ngir jébbal ko ki nga xamante ne moo di njiitum réew mi di président Adama Barrow ngir mu daal di nangu mbir lu ñu mel waaye dafa mel ni nangute boobu daal mbir ma mujjeegu ta antu dañ koo daal di puus ba daal ay fan ci kanam ngir daal ñu gën a mën a xool mbir moomu lee ndax dina daal daal di antu ndax bu ñu nemmeekoo nag euh, ci li nga xamante ne moo di ay fan yu weesu euh, bëggoon nañoo indi wala sax weer wala weesu bëggoon ñoo indi jël li nga xam ne moo di ripot boobu daal di koy jébbal njiitum réew mi waaye nee nañ dafa am liñ ca bëggoon a yokk loolu moo waral njébbal boobule mu ni wujjeewutoon a am fii nii ci biir réewum Gambia gannaaw ba ñu nemmeekoo nag euh, ni ngi ni démb la ñu ngi doon yaakaar na dinañ ko daal di jébbal waaye mbir ma ba léegi tamit mujjeegu wutoon a antu fii nii ci biir réewum Gambia mbokk yi laataa ñuy ndar keppal xibaar yi dinañ leen daal di jukkiwaatal rek li nga xamante ne moo fi gënoon a fës lu ci mel ni euh, juróom fukki ak juróom-ñeenti ci ay ndongo daara yi nga xam ne nemmeeku nañ ne euh, dañoo di jël ci raw gi am agrégate six fii nii ci biir euh, réewum Gambia beneen ponk xibaar yi tamit ñu ngi ko fi doon faram-fàccee mu jëm ca bërëbu attekaay bu mag ba nga xamante ne daal di nay daan ñi nga xamante ne ñoo di inspecteur général bu police ak ñi nga xamante ne ni ñoo di antony général ngir ñu daal di ikkati koppar bu takku daal di koy fay daal ab góor gii di wóor turu Mouhamed Lamine Kouma fii nii ci biir réewum Gambia beneen ponk xibaar yi tamit ñu ngi ko fi doon faram-fàccee mu jëm ba léegi rek ci autopsie bi euh, du ca dal ndax daal faatu bi na luy ñuul ci soow mi beneen ponk xibaar yi ko fi doon faram-fàccee mu jëm ci former général ak leader bu Alliance a National Reorientation and Development Lamine Bojang yëkkati ay kàddoom wax ko ak waa standard ne jamono ji daal dañoo war a fàtte mbirum jàmme te fexe daal ñu développé li nga xam xam ne moo di réewum Gambia beneen ponk xibaar yi tamit ñu ngi ko fi doon faram-fàccee mu jëm ci diggante Gambia Sénégal euh, Guinée Bissau ak foofu lañ ca Mauritanie lëkkaloo bëgg a def su lu jëm ci wàllum ndox mi ngir ñu bokk fi nga xamante ne foofu lañ koy daal di jëlee beneen ponk xibaar yi tamit ko fi doon faram-fàccee mu jëm ba léegi rek ci turu commission bi mu di si ak li nga xamante ne moo di seen bataaxal ba ñu naroon a jébbal njiitum réew mi di président Adama Barrow mbir ma mujjee wuta am te loolu tax ñu puus ko ba ay bés daal ci kanam mbokk yi lee fi ruuse woon ci ay xibaar fii nii ci jamono media and doo jàmm yàlla nañu yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokk yi cant ak ngërëm ñel leen ba suba ci yeneen xibaar fii ci jamono media and products jërë ngeen jëf